Sen site Dakar Matin molendi leen di revue de presse ak Pap Alé Bismillah, bisimila yéenekaay bi di Le Quotidien ne ginaw tank jam, yi nga ne Touba ak tiawon def nañ ko ngir fexe ba bi du nek ci ñu sauver année scolaire bi enseignant yi ña ngay nak nguur gi lo xamne dañ ko digge won nañ ko def te xoxatal bi nañ ko dakal ben ayu bes nak lañu may nguruk sénégal ngir ñu mëna jublu ci soxlay enseignant yi ci yene kay bi du populaire mamadou lamine jante ne dafa doy dafa doy lol ngur gi xoxatal yak bundu xotal yi nga xamne koy def enseignant yi na dak lu moy rek ñom dinañ taxaw jàmmarloo ak nguur gi ndax lepp lépp mu ñu ñoo wote jam ba paré nguur gi bëgga def lu ko neex te nak mi ngi fatali nguur gi ne fim nek nekk nii moo dor bi nga xamne dañ ko suspendre c'est provisoire rek de ni ni ku dong la bu nekké ne nguur gi jamu jàmm ñoom it ñu dàbbali dafanteeg ñoom ba mu saf sàpp ci biir yéenekaay bi di enquête abdou fati ne ah jamono yi daal nguur gi dafa am arme non conventionnelle bu bokkul ci grève muy ñan mu di ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi kan lañu sana ñaan fi ci réew mi ñu gantal leen munta nekk amul benn kilifa diine bu mën a woo syndicat ñaan la nga ne maa bañ maa lànk nguur gi arme non conventionnel la yor moo ne de enquête nee na tuuba ak tiawoon la woon fa woon rek ñu def tradition saa bu réew mi nekkee ci guuta nekk ci ay jafe-jafe nga dégg tuuba ak tiawoon yëkkati seen kàddu waax waaye dossier bii ci dëgg-dëgg Macky Sall moo rëcc ndax nag ñombelu réeréy la naroon def ci nguuram gi musiba naaru laay la naroon a def loolu la ñu yéene kaay bii du l'observateur xamal ndax radier lu toll ci 5000 enseignants ci fonction publique xamul sax lu mu mel day wax rek waaye loolu bés bu ko defoon nguuram dina yëngatu lool loolu lañu yéene kay bi du l'observateur xamal tey ji jiboka moo yoroon kàddu gouvernement parti socialiste 1987 ba ñu rajee policier yi am na lu mu wax nee na radiation <laughs> radiation radiation du décision bu ndaw de décision bu graw lool kenn du toog rek ndogu bam neex la rek nga raay sa koll na da ngay rajee mukk lolu kenn du ko def de nguur bu am ful di xalaat di gëstu du def lu ñu mel yene kay bi du l'observateur jox kàddu ay policier yi nga xamne dañ leen rajee 1987 waye lañu wax yaram daw na lool ay kër yu tass ay njabot yu tass lol yépp nak ci radiation bi la bàyyeekoo na beneen mbir jur lu Modou Fada est-ce que mo wara tok ci assemblée nationale ci parti démocratique sénégalais mok aliou sow ndax ñom ñaar ñep ñom ñoo yor parti politique yene kay bi di las na moustapha niass de ngay wër fim nek ni dal xamul biri nan la koy défé motaxit jébal nako Macky Sall nako wax ñu ci ban xalaat Macky Sall nak ben xalaat la mëna moy lan jébal mbir mi conseil constitutionnel ñan ñoo war a toog ci siège PDS yooyu le Macky Sall mi ngi ci pression bu réeréy yéen kay bi la turbine moñ ko xamal tey ji ndax dafa bëgg a dakkal li nga xam ne moo di track bi libéré Karim Wade waaye benno sigil Sénégal di ay alliéem nee nañ loolu munta nekk déedéet ñoom ñoo diggee sénégalais yi yëkkati seen làmmiñ ratatat reddition xaalisu réew mi fu mu nekk deen ko jëlee lii du dëgg du yoon ku sàcc bi da la tëj ci biir kaso bi su ba teel na ne loolu dañuy gas ba mu xóot ñu suul mukk mënu fee nekk jaxate di tontu Ousmane Gom ci biir yéene kaay bii de la tribune ba tey ji ne bi daal ah dige de gor ca wax ja ñoko digge won ñom ñof nekkon di wax rek ñoko digge won Ablaye Diouf Sar ci bir yene kay Ablaye Tourbine ba teji na Macky Sall du mësa trahir intérêt sénégalais ci kaw lengo wala jubo ak wa parti démocratique sénégalais waye nak ñu dem ci ministère de l'intérieur ndax nak fofu ñu fa fassiyene waxtane li nga xamne modi code électoral bi ak fichier bi enquête ne opposition bi ci pecc xol lañ fa nara demee PDS Rumi, Boko Gis Gis UCS AJPADS ñom ñoo andando taxawé wet Fada Suleiman Dene Ndiaye ak Aliou Sow taxawé wet indi liste parallèle yene kay bi di le quotidien ne coalition politique bu bes bu juddu la waye enquête néna ministère de l'intérieur mo fessiyé né atté lu ñu mel procès Hussein Abré jéxagul dé ndax ay avocat dugal nañ benen deug seurex ci mbir mi yene kay bi di las mo ñu ko nee nañ ñaari fan lañu may nguur Sénégal ñu bàyyi kii di Hissène Habré lu tax ci biir yéenekaay bi Le Peuple ñu koy xamle juge Amady Diouf nekkoon ci chambre africaine extraordinaire dafa saraax dugg musta def fonction de juge ci carrière loolu la ay avocat Hissène Habré xam ne tey jii te irrégularité boobu la moo tax procédure bi lépp moy nul daanu ci suuf ñu bàyyi kii di Hissène Habré waaye accusation yooyu le kii di Marcel Mendy yor kaddu chambre africaine extraordinaire yi ci biir yéen câble populaire même na ko ne Amadou Diouf def na 25 ans d'ancienneté kenn mënu ko tuumal lu ñu mel central contour global loolu inauguré nañ ko démb 53 mégawatt nara dugg ci biir courant bi ngir dog dogu courant yi wàññeeku Macky Sall moo def lu ñu mel félicité na DG Sénélec loolu ñu yéen bi le populaire xamal stratégie rax ci dolli yokk ci leneen dikk sénégalais yi ne léegi ñu wàññi li nga xam ne moo di njëgu courant yi ba booba jërë ngeen jëf ci déglu bi ñu leen di jëree su seen site dakar matin point com incha